لأن رمضان يجمعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله على محمد mbokk yi di bàyyi xel Ali Imran TV asalaamaaleykum di leen jaajëfal bu baax a baax ci topp gi ngeen ñuy topp ci seen jotaay bi di ndaw ñi ak koor gi di ma sow sama moroom yi nag bu baax a baax séeréer ndey ndeysaan mosu leen coono léegi mu jeex ñaari fan weesu na li ci des bareetul tari leen sóoratul muñ rek te xam ne ab jaamu yàlla la tey nag dañuy continuer waat ba tey fi ñu daane leen suñu kàddu di soxna ak koor ndaxte dañuy faral di wax ndaw mooy ëllëgu réew waaye bu ñu fàtte ni soxna moo di yaay di di mag di lépp kon moom ci defarawam ci société bi dafa doon lu am solo rawatina ci weerum ngëneel di weerum jéggal soxna si ñu ngi doon wax ne maanaam su amee ngànt na jaamu yàlla laalawuñ ko kaamil waaye na jël ay kiiwam kurusam di def dog woo oustaz laaj oustaz tey lan mooy xadis bi dugg ci site yi xool li baax di moytandiku li nga xamante ne baaxul moytu yàkkal góor yàlla seen koor ci colin gi e, donte warut nga xam ne dañoo war a fuglu sunu borom saa sune ne ndaxte àddina ndoxam géej la dangay naan ba sonn rek waaye doo mës a màndi nañuy faral di gis léeg-léeg ñu ne dafa tàng nga gis ku wóor solo nu mu ko neex génn nga ne ko li nga sol nag mu ne la chuu binta dafa tàng nga ne ko tàng ba ci waaye gis na xanaa xamoo expose bi ngay expose sa yaram bi ci bitti moo gën a bon sax tàngoor gi nga xamante ne yaa ngi koy daw ndaxte am na nooy solo lu mu tàng tàng doo ko yëg yàlla xam na lool tàmm la rek tuub nag dafa war saa su ne rawatina ci weeru koor soxna si nga xamante ne zaaxire woon na ndaxte dañuy nu ne wax dëgg fa yàlla macha allah koor gi dañuy changer suñu accoutrement bu baax a baax ñu ngi ciy góorgóorlu ndaw ñu bari ñu ngi ciy góorgóorlu donte du ñëpp. yow mi nga xamante ne góorgóorlu nga ci ba di ci changer rikk waay su koor gi jeexee jéem koo woyal mettiwul wax dëgg fa yàlla mettiwul ndaxte dañ lay yërëm ñeewantal la léeg-léeg waajur yi tamit nañ jàppale xale yi bu baax a baax ci jaamu yàlla gi ndaxte yoonu ndaw lu gàtt la yàggul de tubaab dafay faral di wax ni l'enfance passe la jeunesse prend place la vieillesse les remplace et la mort les efface te nit ki xamul ëllëgam teyam rek la xam démb weesu na kon nag nañu ubbi suñu ndabi xol taataan niiri leeru yërmandeeg suñu borom ndate suñu borom yërëm gim tax weeru koor mu def ko weeru yërmande weeru njéggal euh, xale jigéen tey nañ ma baal mais dañuy faral di wax tendance bu topp tendance rawatina ci koor di leen jaajëfal baax baax yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy topp di leen jox dig daje ëllëg ak jàmm incha allah